merci merci merci ayca ni ngeen def nii wax dëgg yi xam dumun wax sax kon ngeen may ñu tuuti ngeen arrière gaa kenen leya de mbaab niimu le ndaam yange sadax ma ndaat kaan no maago le o maago le toujours ka waro fi madat ko numan ndaa ne jangel mbaa o pana jangtin madat mbaa o mbaaf rel fo le ko Madaka Madakari mteloki daa yoo mis baa jaajak koro mis baa jaaxar yoo mis baa jaaxar koro mis baa in nga am ñàkk teema ren to barke jumul o men dok teema o men dok teema kam laye ñumatira laya ka lega anin o bis waage xuy we o bugo waaɗik bis lakas waage jeg please ofanya ngati wakilo chipinzo mne huyu wakule wakipinze kukotutima weje wakeje ajega hanan malaye ona ngai ta ferero ngaltike nuyu nañ la maa ngi lay tur bi naka la xaan Diouf xaan waaw hmm. saltige xaañ lan nga gis ci li xam ne moom di nawet bi nawet bi moom dina baax waaye buñ moytuwul bu wax nawet bi to mënoo koo jël bañuy góob ba bañuy dëqi dangay fen doo def sa sa sa sax bi ba mu fees nit ñëw yéeg ci diti heure bi loolu du fen ah bu ñu defut nag bu ñun ci ci géej gi tous tour mu lan nga gis ci politique bi jamono ji ah politique bi loo ko gisee politique bi yaa ngi xoti sa piis piis piis bi xoteekul nga bëgg a jël beneen piis remplacer ko loolu mën naa am ah maanaam Macky pareegul ah xam nga de wax nga de ne nga Macky pareegul déet waxuma ne Macky pareegul dama la ne boo jëndee sa piis piis bi sàppiwul nga bugg a jëndaat loolu mën naa ne Sénégal gépp waxoon ne Macky mooy folu ki ma gis mu folu waxuma séeréer waxuma wolof mbii maa ma wax ma wax leen nag bu ñuul diggante Sénégal ak Casamance li ma gis ci géej gi góor du yóbbu tubaay jigéen du yóbbu sax ñu bañ ku mën a génnee bato bi ma mosal loolu. accident yi bari nañu rey bi tamit bari nañu lan moo accident yi ku wax ne accident du am waxoo naan di tux. naan beeg tux bi moo tax accident bi bari. moo gën a bari boo tuxee loo looy xam boo tuxee yamba loo xam boo naanee sangara loo xam. rayante gu bari gi nag noo rayante bi bu ñu defee saraxu nag bu weex ah, saraxu nag bu weex ut garab bi ñuy wax pucc pucc suul ko ci ci foofu kooku du amat doy na merci beaucoup kon ñu ngi lay